waaw dimbali lu ñu ngeen. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dégage. Macky Sall dictateur. Macky Sall dégage. Macky Sall dictateur. Bravo, nu, ene carte națională, zero pe nu mai am. doo dem stade Élysée bi na ma doo dugg parce que lii suñu yoon nekkul. Vamos El eh, Fallou El eh. Fallou jili jotoo jotuma jili jotuma jibi joxuma jibi saar Ismaïla ñëwul ba léegi de. mi ngi dem ni. jël ko jël ko. waaw mooy partage bi bu ma ko bëggee day daal day daal. suuf benn dërëm.

lii nii balaa ñuy liggéey loolu doo dooñu wax kii liggéeyante ñu lii nii ah ma ne kii nga wax mu liggéeyante ñu ko Ismaïla mu liggéeyante ñu affaire bi quoi waaw ñu ngi koy sàmm dañoo am problème bu ko yi li leen ñu enregistré waale gën a am micro test micro waaw kon euh, ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy suivre ci Sénégal 7 euh, ñu ngi nag euh, fi nga xam ne moom mooy Liberté 6 côté saint bi noonu mbooloo bu takkoo ngi ñëw fii pour interagir par rapport yi nga xam ne moom mooy situation bi ci Sénégal ñu gis également que jeunesse bi teew nañ bu baax a baax a baax. waaye di ñaan di ñaan jàmm également li nga xam ne moom moo moom mooy si si réew mi papa ñu papa ñëw nii rek ñu jël euh, quelques réactions sénégalais balaa euh, ki nga maanaam mënu may kon ñun mënuñ ko may virgule seconde duñ ko may seconde seconde duñ ko may Macky Sall Voilà. Mais... avance nële nañ dem nële léegi dañuy dem nële ñoom guy avancé jéem a waxtaan bi ak yéen jël sénégalais yi Y'en a notre constitution n'est pas une pute. Y'en notre constitution n'est pas une pute. Macky Sall doit arrêter le tripatouillage de notre constitution. On en a marre. Il a jusqu'au soir, jusqu'au matin même du avril pour nous laisser. À partir du 3 avril, qu'on ait un nouveau président ou pas, si on, aura, un nouveau président, on président. Sinon, s'il n'aura pas organisé d'élection jusque-là, président ici au Sénégal. nekk kaddu euh, ñenn si sénégalais yi di yëgër seeni i kaddu ci li nga xam ne moom mooy métti si ci réew mi le droit euh, au vote de droit au scrutin pour lu ñeel élection présidentielle février 2024 ñenn ñi di ne président de la république dafa ñi di euh, wax ne le président de la république. Ah, di wax ne également ñoom ñooy sénégalais ñu ànd ak dal ak tey. Euh, ànd ak euh, di ñaan jàmm ji nga xam ne ñu ngi koy mi li nga xam ne moom mooy euh, réew mi daal di am am jàmm ak ak salaam bu baax donc yéen a ngi gis takk der ñu ngi dugg si biir koñ bi yéen a gis papa zumal ma lale zumal ma lale yéen a ngi gis takk der également ñu ngi ne si koñ bi di di di avancé pour dàqandi li nga xam ne moom mooy ful bi am fi nga xam ne moom mooy au niveau de liberté côté yoonu Liberté 6 bi xam ne foo lañ bëgg a dem ànd ak yéen dañuy ànd ak presse bi yëpp euh, daal di jël lépp li nga xam ne moo fi nar a tukkee tey fii au niveau euh, fi nga xam ne moom mooy ginnaaw 16 bu bu bu Pastef euh, ginnaaw manifestation bi nga xam ne wala cette campagne de mobilisation conjointe candidat retenu yi daal di koy jël pour daal di naqarlu nee nañ report bi président de la République yéen a ngi moo lacrymogène également de l'autre côté ça foule de partout di fàttali également papa ñu ngi sànni. donc yéen a ngi gis lacrymogène papa jëlal ma lacrymogène yi si ginnaaw jëlal ma ko ma bëgg la Sénégal sénégalais yi témoin si li nga xam ne moom moo xew fii nga xam ne mooy seen dëkk. Euh, donc mbir mbir yaa ngi noonu yéen gis euh, force de défense et sécurité yi ñoo ñuy euh, sànni ay lacrymogène di ñu pour lu ñeel li nga xam ne moom mooy moom mooy mbir yi fii. naa dama nekk si direct bu mu nekk si direct wax ak yow nee naa ñi foofu taxaw fi taxawoon sànq ah moom comme naa ko sànq macha allah école macha allah. ah moo dama nekk en direct waay ah. waaw ñu continuer li nga xam ne moom mooy waxtaan bi di wax ne ñi ñuy woo si direct bi également. nañ ko nañ nañ ñu jéggal bu baax baax a baax parce que mënuñu di yëkkati euh, kàddu gi pour wan sénégalais information ba pare également euh, lu ni mel euh, donc lan la di la wax également su nekk yaa ngi ci nga mun ñuy jege parce que mënuñ jël sa appel waaye gis ngeen ne lacrymogène bi nga xam ne yan kàddu nga boo yëkkati kilifa gi. suñu papa bi asalaamaaleykum. le doit nous protéger nous on doit le respecter mais quand on se sent plus protégé par cette constitution xam nga lan mooy ñëw légitime défense dama la wax légitime défense mooy autodéfense c'est un livre sacré qu'on doit respecter nul n'a le droit de tripoter ce code pénal vous savez aussi sacré que les livres saints que nous vénérons la Bible ou le Coran ñii di seen Torah Macky Sall doit apprendre à respecter ça voilà le code pénal là c'est un livre sacré oui je le répète daf ñu xam nga voilà yaa lacrymogène bi yaa ngi gis lacrymogène yi ñu ngi koy sànni euh, fii nga xam ne moom mooy au niveau côté école macha allah euh, donc yéen a ngi gis li nga xam ne mooy la réaction de certains sénégalais par rapport ak li nga ne mooy décision président de la république jël ñenn ñi également di ko di ko daal di euh, ñaawlu si si si li nga xam ne. ñëwul nii jege jege ñëwul jege si jël si jël kàddu di wax sénégalais bu nekk am na droit wax lu ko li nga xam ne moom la xalaat la libre opinion. Euh, salaam man maa ngi tudd Abouka jóge ba Fatick ñëw fii nii euh, si manifestation yi ñëw damaa ñëw manifester nag pour libérer le peuple sénégalais et le peuple africain puisque Macky Sall nootaange bu mu ñu teg. dictature bu mu fi nekkee si dëkk bi il faut que ça s'arrête je lance appel à tout le peuple sénégalais zone fu mu manti nekk si Sénégal à partir d'aujourd'hui amul seral amul seral jusqu'à ce que moom mu abal ñu fii ñu jël suñu réew mi libéré ko defal suñu bopp il faut que ça s'arrête mënu nekk jël loi yi di ko tripatouiller comme nu ko neexee il faut qu'il s'arrête il faut qu'il s'arrête man maa ngi jóge Fatick maa ngi jóge Fatick ba léegi fii je suis un formateur au CFP de Fatick je suis venu pour me battre pour participer à l'historique du Sénégal il faut que le Sénégal soit libéré que le peuple africain soit libéré dafa waaw voilà. Euh, nga ñëw rek sànni ay kàddu moom tamit kenn la si yaay yi. waaw si biir réew mi mu am lu ko naqari. génn ànd ak samay doom ndax lii may kaas pour ëllëg pour samay doom a tax du pour man ndax man sama wàll wéy na ba pare mais comment se fait-il moom mu nekk fi 12 ans ba pare mu ne du dem fan la ko teg munul nekk il faut mu dem amal ñu ñu fal ko ñu neex loolu mooy dëgg. dañoo sonn tëj na doomu jàmbur yi ku wax mu tëj la. ku ku moom daal mook ay nitam wana nañ ba pata nañu dem nañu dem keneen ñëwaat ñun dañoo sonn surtout ñun néew si doole yi tekkiwuñu dara sonn nañ Macky Sall na dem dayal nañu na dem man mii man mii di ah na wax ba pare man mii di wax ak sama doom tëj ne ko un te deful dara innocent benn guur laa am sama xeet kenn musu leen keso kaso Macky Sall moom ma def te moom laa voté il m'a trahi. Ah, ah, Macky Sall trahi na ma li ma def du ma ko baal si àddina sama mbokk sama deret sama doom sama taaw mu nekk benn góor mu dem tekk ci kasa bi Macky ko ko baal na dem na dem loolu moo tax ma génn tey ku yaay ko man tey na nga génn. Mohamed la tudd Mohamed Macky Sall ko un an ko torturer. dafa day vous pensez que chaque fois quand il y a une, des approches électorales il va emprisonner l'opposant principal il en a fait avec